élection législative 2024 dañu war a nag taxawal ab débat médiatisé lëkkaloo ci ak kuréel gi nga xamante ne moom mooy CNRA mu fas yéene dox ci digg candidat yi nga xamante ne nag mën nañ ci tudd Ousmane Sonko Macky Sall Barthélémy Diaz ak ki nga xamante ne moom mooy Amadou Ba loole nag nekk mbébétu Alioune di fondateur bu Africa Jom Center mu ngay nag lancé ab appel ngir nag ñu def ab débat télévisé boo xamante ne nag dafay dajale figure politique majeure yi nga xamante ne ñu nekk fii ci diwaanu Sénégal loolee nag lay sàkku daal di koy nag taxawal lëkkaloo ci ak Sénéral loolee nag ñu daal di koy réguler teg ko ci chaîne nationale loole la ki nga xamante ne moom mooy Alioune Tine di sàkku ndaxte nag jàpp na ne loolee bu ñu ko defee dinañu nag révolutionner li nga xamante ne moom mooy wàllum politique ak li nga xamante ne moom mooy démocratie gën a ñooñ ca kanam mu nekk nag proposition boo xamante ne njiit bu Africa Jom Center di Alioune Tine daal di koy xamle ba tey ñu àddu wax ci décision bi nga xamante ne Mame Diarra Fam daal dina koy jël moom mi nga xamante ne nag jamono jiile moo jiite euh, mouvement bi nga xamante ne moom mooy alternative future Mame Diarra Fam jamono jiile mu ngay woo ay militants ngir nag ñu soutenir premier ministre bu Sénégal nekkit leader bu Pastef di Ousmane Sonko ci li nga xamante ne moom mooy élection législative yu ñu dëgmal député ba woon loolee la xam xamle gannaaw rek désaccord yi nga xamante ni am na ci digg mag parti bile nga xamante ni moom mooy PDS ba ñu jëlee ab dogal ne nag dañuy lëkkaloo ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa APR maanaam nag àndaat ak président Macky Sall ci élection yi ñu dëgmal loolu di ab coalition boo xamante ni daan nay juddu fii ci diwaanu Sénégal tala leen nag maam Diarra Fam daal di wane gannaaw jamono jile Pastef lay jàppale Ousmane Sonko lay nag wax ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay ñoñom ñu daal di koy votel nee na nag ba mu taxawalee nga xamante ne moom mooy mouvement bi ba léegi tey la gën a mën jàppale ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko mu ngay woon nag ñi nga xamante ne dañuy ay militant am nekk ci Sénégal ak ca bitim réew ña nekk ca commune bu Guinaw Rail Nord ngir nag ñu daal di voté liste bu Pastef bile loolee nag Mame Diarra Fam mu ko di nag jël ab dogal di xamle li ni mel jamono jile nag ne dañuy ay compatriotam nekk ca diwaanu Pikine ci diaspora bi ñëpp ñi nga xamante yàgg yàgg nañu ko soutenir yàgg nag jëfee li nga xamante ne moom mooy ay décision am Walf Net présenté na ay excuse am homme politique bi nga xamante ne moom mooy Barthélémy Diaz nekkit maire bu Ndakaaru gannaaw li nga xamante ne dafay ay xibaar yu ñu fësal ci ay mbiram ne nag dañu ko fas yéene éliminé ci élection législative yi ñu dëgmal gannaaw ba conseil constitutionnel daal di nag birale bi lee dogal loolee Walf Net daal di nay nag delluwaat gannaaw weddi xabaar yi ba mu set ñu ngay jéggalu maire bu Ndakaaru di Barthélémy Barthélemy jàpp nañ ne nag loolu li nga xamante ne sosal nañu ko conseil constitutionnel dañu nekk nag loo xamante ne xibaar la bu ñu jotoon te nag jotuñu ko vérifier ba tax na sax ñu ngay jéggalu euh, ki nga xamante ne moom mooy actuel maire bu Ndakaaru di Barthélemy Dias rédaction bu Walfnet ñoo daal di xamle li ni mel jamono jile nag dañu fësal ab communiqué di xamle li ni mel Maimouna Dieye daal dinay àddu ci li jëm ci li nga xamante ne moom mooy ay bourse familiale président Macky Sall mu ko fi tegoon nee nañu nag bénéficiaires ya seenu lim takk nañ lool toll nañ ci nag trois cent yoo xamante ne ñoo fas yéene jot yi les bourses familiales maanaam nag ñetti téeméeri doomi aadama yoo xamante ne nag nguur gi fas yéene na leen nag jox yooyee koppar loolee la jëwriñ ji le daal di xamle nee nañu nag li nga xamante ne moom mooy boursier am na retard bu yàgg mu nekk nag ay allocation sociale yoo xamante ne dañ koy jàppale ñi nga xamante ne seen loxo jotul seen gannaaw ci 2023 bile nee nañu nag am nañu ab décalage bu ñu nemmeeku ci mbir ya li koy waral nag di situation catastrophique bi nga xamante ne nguurug Macky Sall daan na koy bàyyi ci réew mi amatuñu woon ay koppar ngir daal di nag andi saafara ca loolee loolee ministre bi mu ngi ko xamle ca rajo Futura Media nee nañu nag jamono jile am nañu ay solution te koppar ya nag daal dinay disponible dinañu nag tàmbali daal di koy nag a toog nañ juróom benn weer joxuñu leen li nga xamante ne moom mooy ay bourse familiale ba ñu génnoon yoon di naqar li ni a jamono jile nag nee nañu dinañu tàmbali séddali boobee nga xamante ci nekk la la nguurug Sénégal war a jox ngir jàppale la nag dinañu la ko jox loolee nag di ab déclaration di Maimouna Dièye ko daal di xamle ca Saint-Louis du Sénégal la ñuy dem ab gros malaise la ñu fa nemmeeku ca biir à parti bu Déthié Fall bile nga xamante ne moom mooy PRP mu nekk nag ab parti boo xamante ne ki fi nekkoon àndandoo njiit bu réew mi di Idrissa Seck mu ko daal di taxawal Déthié Fall jamono jii la ay militant am ca diwaanu Ndar ñu bi nga xamante ne moom mooy takku wàllu Sénégal ba ñu taxawal ak sàmm sa kàddu ki nga xamante ne moom mooy tëdd liste bu APR di Mansour fay ca diwaanu Ndar ñu fas yéene topp ca gannaawam loolee coordonnateur départemental ba di Mamadou Mbaye mu ngi ko daal di nag naqarlu nee nañu du soutenir benn yoon li nga xamante ne moom mooy bile intercoalition moom mooy la ñu doon xeex euh, ci nguurug président Macky Sall Déthié Fall ak parti bii lee nga xamante ne moom mooy PRP dañu taxawoon di naqarlu doxalinu président Macky Sall activiste bii lee moo ko daal di xamle euh, te loolee nag tey la ñu ko gën a bañ àndul benn yoon ak li nga xamante ne moom mooy seeni conviction la ñu doon bañ démb tey nag waruñu ko mën a nangu bu ñu sukkandikoo ci activiste bi lee euh, tax na sax moom moomee di Mamadou Mbaye nee na nag jot nañu jàng lu bëri ci mbir ya ba tax na sax nee nañu dinañu amal am daj daje ngir nag daal di koy waxtaane mu nekk am ndaje boo xamante ne ëllëg ci alxamis bi yemook fukki fan ci weer octobre lañ ko fas yéene def mu nekk ab réunion boo xamante ne jot nañu ko convoqué membre ya ngir nag ñu daal di koy waxtaane fexe nag ba trouver ab solution définitive boo xamante ne dinañ xool naka la def ak kan lañu ñu fas yéene jàppale ci yile élection jàpp nañ ne nag Déthié Fall homme de valeur la te li nga xamante ne moo leen métti dinañu ko waxtaane ak moom dinañu nag trouver consensus ngir nag fas kii ne waajal seen bopp dem ci li nga xamante ne moom mooy yooyu élection mu nekk nag ay kaddu yoo xamante ne kii nga xamante ne moom mooy a Mamadou Mbaye moo ko daal di xamle.